sànq na la première dame bi mu ñëwee États-Unis ak boroom këram bi booy boobu taxawee du ruube pourtant man si sécurité Macky Sall laa bokkoon mooy bu mu ñëwee ñoo ko ñoo ko accueillir ok bii Tunkara Ousmane Tunkara mhm, Tunkara waay Tunkara ñu ngi Tunkara mhm. tey keroog def naa fa loo xamante ni mhm. Farba moo na ma def ko Farba ban mel na Ngom ah. waaw ma def ko dal la wax nga def ko non déglu rek <laughs> ngay déglu kay tey boobu laa gëyee dëgg Farba. loolu noonu. maa ko wax président Macky Sall. yaa ko wax. barki Seydina Mohamed. la président Macky Sall bi coow li amee foofu noonu. Mhm. ñun dañuy defar rek. sunu président du jógee sunu réew. Mhm. réew réew fekk nu ko ñuy préparer combat di entraîner. Mhm. tey mu ñëw war ñu mën a dem defar ko sécurité. ndax ni ku nekk ki nga am moom ngay tiitaroo. dëgg ko ak Ousmane Ousmane Tounkara ne fa yor micro di wax. nekk nag nekk ci rôle am quoi. en tant qu'opposant waaw ñu taxaw ni farba na ma lii nax mën na si dara man na ko mën naa si dara. Mhm. ma jëlal micro bi. Mhm. après naa la neexal. Mhm. tele laay waxee. am na ñu ko seede pare euh, euh, Talla la mu ngi taxaw. Gaston mu ngi taxaw. Gaston benn waay. mën na ma seede. ma jël micro bi. Macky Sall moom bu mu ñëwee. nga rencontré ko loolu. bu ñu ñëwee réunion si kaw ba wàcc wàccuwaat bay dem daanaka président diw taxawoon na fii. Mm-hmm. mun a far ba lakkante moom français naka kon sa daa ñëwoon fii mun na ko waaw. Mm-hmm. te xoolal geste foofu mu def. Mm-hmm. ñoom ba léegi oo ñu ma remercier ma. te far ba am na leneen lu ma waxoon te gisuma ko. mu ngi lay dégg de parce que mu ngi may dégg ma li may bi waaye. yaa may dégg. dafa am yoo xam ne yoo xamante ne nit bu ko defee. da nga koy oo sa nga félicité ko. au moins. maanaam man man li may laajte mooy maanaam ama neex moom est-ce que moom mu ngi dégluwaat boppam quoi moom li muy wax moom est-ce que moom mu ngi dégluwaat boppam maanaam yow li ngay def nii maanaam jàpp nga ne lu baax la lu jaar yoon la ba tax na yow après da nga waroon a xaar appel ñu la war a woo quoi ñàkk fayda ñàkk fulla ñàkk jom weesuwul sa moroomu góor kon yow di la defloo ay affaire yu ñàkk fayda nga koy def ba pare rusoo ci dara mal ne ku taxaw di ko ndamoon ak naan daf maa waroon a woo sax remercier ba lay remercier yow nga fekk nit kuy kaas ay droit nga ñu ne la nga dem jaay ko doole nga nangu micro bi ci réew boo xam ne réew droit la nga dem fa di jéem a jaay affaire après yow nga ne da ngaa waroon après dañ laa waroon woo remercier la remercier la ci geste bi nga def ko yow yaa ngi rusloo sax bopp di rusloo ñi nga xam ne ñoom ñoo la ko doon def loo donte ne ñoom sax ñoom du ñu rus ñoom am ñu lu ñuy rus am ñu lu ñuy jomb maanaam yéen ban yéen yéen ban monde ngeen nekk di dund quoi ma wax nga ne dañ laa waroon a woo ay nit yu ay nit yu ñàkk fayda ñàkk fula di la defloo ay affaire yu ñàkk fayda yow en tant que góor en tant que góor nga war am fula ju ne tool nekk nekk hey man kenn du ma defloo affaire yu ñàkk fayda yi defoo ko de nga def ñu ne la mën def nangam nga ne waaw nga dem def loolu après yow nga nga taxaw ne dañ laa war a woo remercier la quoi yéen yéen doo leen ruus comme ça. doo leen rus sax taxaw di wax lii ko ma wax nga taxaw si kanamu télévision nag di taxaw di ko wax yow kooku lu mu lay remercier yow kay defloo lañ la yëfu muus yëfu golo lañ la defloo nga dem def say yëfu muus def say yëfu ñàkk fayda boo paree loolu lu lay remercier yow yow li nga doon rek loolu nga mérito parce que yow nga yow dañ lay jël di la pamte pamte demal defal ma lii demal waxal ma lii di leen jox ay quinze mille francs ay trente cinq mille francs ay cinquante mille di leen defloo yenn affaires yi ngeen yor seen i paaka ak seen i di ñëw di attaqué booy quoi sa genre gi rek ñoo koy def parce que yow nee nga ci sa biir wax nee def na la demal nga nangu micro bi après dinaa la neexal ça veut dire que yow même fii Sénégal boo leen fi daje woon ay manifestation am fi wala dara mun na la demal nga attaqué booy boo pare dinaa la neexal sax da ngay dem def ko maanaam yow ci nervi yi nga bokk kon su ma la déggee. parce que li nga def foofu yëfu nervi la bu fekkee da ngaa fekk tunkara bu yor microom di kaas ñu ne la demal nga nangu micro bi yow yow yëfu nervi nga def yow ci mbëru nervi yi nga bokk quoi affaire nervi yooyu noonu après nga taxaw di taxaw di ko di ko ndamoon naan ay def maa waroon a wóor di di di jéem a kaas looy looy kaas yow bu ñu nekkoon ci réew bu normal yow dañ laa waroon jël si parce que da tooñ. Tunkara li mu doon def ay droit am la am na droit président bu nekk ci Sénégal moom mu nekk ba bitim réew président ñëw. bu profité ci occasion bi ñëw wax lu wax ko li ko bu ko munta jàkkaarloog moom mu yor micro am wax ko li nga xam ne moo nekk ci biir xolam am na ci plein droit. bu ñu nekkoon ci réew mu normal président dafa waroon a dagg yitteem ñëw ba ci kanamam diglu ko mu wax parce que gis nañ ay président yoo xam ne dafay dafay dem si bërëb ay manifestant taxaw fa di ko xaar mu ñëw diglu leen mais defuñu ko ñu ne la demal nga def ko nangam nga yagar yagari dem naan da ngay nangu ay micro xaw ma sax li nga wax looloo am am amul parce que Tunkara ñàkkul fayre ba ngay ñëw fekk muy taxaw nga jël micro dara du xew. nga ne yéen yaay def nga li nga def ba pare après nga taxaw naan dañ maa waroon woo remercier yow lan lay lay remercier yow gàcce nga waroon a am ci li nga def. parce que affaire nervi nga def yow boo nekkoon fii ci Sénégal ñu woo la ne la demal nga dal ci kaw ñii demal nga dal ci kaw ñii après dinañ dinañ la neexal yow da koy def parce que mooy li nga def nii rek. dem demal ñu ne ma demal waaw mën ngaa nangu micro bi ma ne waaw léegi ma dem nangu ko après dañ maa waroon woo remercier. yow lan lañ lay remercier buñ lay remercier yow yaa waroon a am gàcce ak tuuti ruus ci li nga xam ne moom nga def quoi mais yéen amoo leen benn benn benn jom quoi uti leen jom tuuti ni ngeen di toppee ci ginnaaw seen moroomu góor quel que alpha lu mu mënti doon góor la kon yéen dem leen ngeen def ni muy def ba am li mu am. dem leen ngeen gëm seen bopp ngeen ñafe ngeen fay ngeen bàyyi di dunguru ay nit pour ay neexal pour lan pour lan demal nga nangu ko après naa la neexal pour lan doo gëm sa bopp nga liggéey nga am sa yëfu bopp moo gën ngay dem di jaay doole di def ay yëf di nangu ay alalu jaamu pour ñu lay neexal pour lan yow rousseau sax ci li ngay wax te yéen dafa mel ne seen bopp yi seen mémoire yi dafa tourné parce que doo leen rendre compte sax ci li ngeen di def ak yi ngeen di wax quoi am leen fulla tuuti ci seen bopp nekk leen ay nit noonu ci ci ci ku mel ne yow gis naa ko fan yi passé moom it muy jéem a def ay affaire yooyu noonu. géejawaay encore une fois géejawaay encore une fois yeewu leen bu leen yeewul dara dootu leen yee ku mel ni Lat Diop adduna ak alaxira dootuñu am ku mel ni moom bu yeboo ngeen gën a jàpp Lat Diop gën koo fonk gën koo ŋoy géejawaay ba mu daj laa wax su suis sûr ku mel ni Lat Diop dootuñu ko fi am. li ñu Lat Diop di defal ak lim ñuy apporteel ak lim ñuy lijjantil ak lim ñu mënal doomu aadama duñu ko mënal Lat Diop c'est le meilleur macha allah li mu boolee bari baax na yaru na teey na gore na maandu na euh, ubbeeku na te ba pare murit la Lat Diop li mu boole ci lu baax a bari yàlla na yàlla guddal fanam géejawaay mooy leen ci ba mu dëgër bu mu leen rëcc Lat Diop bu mu defati bu mu defati benn démarche lu mu soxlaati la toog këram mu fekk ko fa barke Serigne Bamba c'est le maire moo gën ñëpp li muy def kenn def ko li muy def kenn defu ko biir Guédiawaye barke Cheikhul Khadim fii ku fi ne bëgg nga sa nekk président de la république man de sama papa bu ko doonoon ma def lu ma neex waaye yaru nga baax nga gore nga yiw nga man la bàyyi noonu yow xam nga ni sama xarit gëj nañoo gisee euh, ma ngir yàlla rek tafaatin bàyyi dimbali ma ngir yàlla Amadou aw ah, sa doomu ndey ngi nii keroog woo nañ la ma sol la sa waajaa déggoo ma xanaa wax jee fi ne rek waaye ku sañoon sa papa nekk président de la dëgg la ba ci man ak keneen ak keneen yàlla yàlla guddal sa fan xale la ngi moo tamit dafa leer xale la njaay mais mais mais mais président xanaa na booba ah ba pare xam nga yow fi mu toll nii dafa mel ne comme si yow yaa yor kàddu waa géejawaay yow yaa yor seen pa yow yaay seen porte parole yow yaay porte parole waa géejawaay bay waxal waa géejawaay ak di leen tànnal kan lañ war a jàpp ak kan lañ war a bàyyi yow xamoo ku ñu war a jàpp yow bu fekkee waa géejawaay dañoo war a jàpp Lat Diop Lat Diop Lat Diop la war defal waa géejawaay ba waa géejawaay war koo jàpp seen fukki ay bu leen rëccee Lat Diop Lat Diop daf dañ ko jàpp ba mu ñuy rëcci Lat Diop lan la def fii géejawaay loo xam ne nit gis na ko Lat Diop yéen yéen la amal njëriñ yéen ñooñu nga xam ne yéen a yor seen i làmmiñ di wër di dungaru rek di wut loo leen def seen poos dinaa nit ki yaa fi gën yaa fi man mu leen di ceebal yéen ñooñu yéen a war a téye Lat Diop ba mu dëgër parce que yéen la amal njëriñ ban entreprise la fi teg bu ñu bu ñu mën a jariñoo ñun Sonès Guédiawaye ban ban ban ban ban projet la fi boo xam ne rek Sonès Guédiawaye am na ci ñu ci jàpp ci liggéey wala ci dara mais déedéet ñoom sa genre gi lañ soxla ak genre ama neex yi quoi ñu di jël di leen manipuler di leen defloo ay affaire di leen boo seen bureau yi di leen jox ay neexal après ngeen génn bëgg ñoo sonal ay téye leen Lat Diop ba mu dëgër Lat Diop mooy kan yow la yow la Lat Diop amal njëriñ yow ak ñi mel ne yow di ko wër naan ko sa a fi gën sa baay fi gën yéen a fi gën yéen ñooñu la laaj Diop amal njëriñ Lat Diop amul benn njëriñ géejawaay këram ci géejawaay sax boo ko laajoon cinq vingt vingt vingt personnes boo ko laajoon benn benn benn moo la ci wax ne fii mooy këram wala sax doo ci gis benn boobu ban njëriñ la amul géejawaay nga ne ñun nañ nañ ko jàpp buum ñu rek lan la fi def bu leen ñu waaye seen yi ngeen nekk ñun nekk ñu si quoi en plus dégg naa la ngeen doomu président bi. su fekkoon man ma sama baay man la nekk président kon man lu ma neex laay def kon ça veut dangaa bëgg a wax ku sa baay nekk président lu la neex nga war a def quoi. xam ngeen yéen kii ay jamono yu bu papaam nekk président ba léegi gisuñu ko muy dugg si ay détails sa genre gii rek ñoo koy wax yu mel nii naa ko lu la neex nga def ba mu jàpp ne daa war a def lu ko neex ku def lu la neex rek am lu la neex. ku wedd laajal Karim Wade fii moom ku fi sa baay nekk président ngay def lu la neex yàgg yàgg sa baay dina wàcc. te même sa papa ji nga xam ne moom mooy président sax amul droit def lu ko neex parce que dafa am lu ko yoon may am lu ko yoon xañ nekkul nit ku sa bàyyi dafa nekk président lu la neex da nga kaa war def yow heureusement ba sa bàyyi nekkul président mais kon yow kon fan nga jëm ak ñun nga taxaw ñu ay bu sama nekkoon président lii gis nga président nit la te yàgg-yàgg nguuram day jeex yéen nag affaire yu nguur yooyu yéen la yooyu yéen la tiital yéen la yóbbu seen bopp yi yéen yéenay gis ku bokk ci nguur rek seen fii di dem parce que yeen li leen japp ne moy dundal seen aduna li ngeen japp ne moy neexal seen ceeb moy di wër di top ci ginaaw ni diko sinap ya fi gën ya fi man ñu di leen manipuler di leen waxloo di leen defloo ay vidéo di leen nangolo ay micro jambour après ñu leen wo ci bureau di leen ceebal yoy ngeen gëm ñun gëmuñu loolu ñun xam na lañ gëm moy Sénégal dafa wara bax ñepp dañoo wara tolo tolloo képp koo xam ne liggéeykat nga bo jigé liggéey da nga wara fayeeku ñun lool lañ gëm mais gëm ñu yi ngeen gëm ni di toog si ginnaaw ni di ko tagal ay maam naan ko yaa fi gën ak yaa fi man ñu nekkuñu si loolu ñun ku fi ku ñu ku fi dëj kuy kuy jug sacrifice boppam joxe léppam ngir Sénégal ñun kooku lañ amal affaire bu ñuy tagg kooku la ñuy tagg bu ñuy waxal lu baax kooku la ñuy waxal lu baax mais du ñu topp koo xam ne ay ay quelque personnes am la yor ci ci suuf di leen instrumenté di leen defloo ay affaires ñu naan ñu ay topp leen kookoo ay moo fi gën lan yow yéen nen yéen nekk leen ay nit ubbi leen seen bopp yi tuuti yéen mënoo leen ñoo nax yéen seen bopp ngeen di nax parce que ñi ngeen àndal ñooñu li ngeen di def lañ bëgg te yéen tamit loolu mooy seen arrangement di wër di tàggal nit ay maamam ak ñu leen di instrumenté di leen defloo ay affaires yéen nekk leen ci loolu mënoo leen ñoo influencé bu dee da ngeen jàppee seen bopp ay influenceur ñun mënoo leen ñoo influencé def leen loolu seen bopp yi bu baax nag.